mais kooku la mais mais borom borom coow laa ngi dawoo ragaloo oh. ah. Mbadou kenn lu fi xew lu fi xew. dinañ tey ñu suba incha allahu rabi le golden boy la musique sénégalaise Wally Seck ñu joué le 3 septembre. Ah. Euh, moom ak Viviane ak Dip duñu ne Mauritanie suma Karara yaayu Eza. jeex na Silma madame Silma ñi ngi ñëw. mais mais ragaloo borom coow yi nag. <laughs> mais wuy ma min nga ko. ah mais dama xam <laughs> ñaa ñaa saraxee nga délégué Amar nag. <laughs> mais loo ko fi ne yàq fàtte léegi fàtte nañ la yàgg ngi ci délégué Amar. <laughs> saraxe nga délégué rek non délégué war naa war naa renouveler gàllaajam <laughs> yàlla nga dee yaa boss mi ngi fii boss ñaa in the building ña nga fa kenn ñoom mais fifty mais wuy ma cool yi doxoo délégué doxoo délégué délégué ama <laughs> saraxe na ko de ah mais loo ko rayal ak doy waar